bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma bikum min nicmatin fa min allah mbokk jullit yi mbokk yi wettali ko seen télévision Tawhid TV seen émission bi di alhuda seen mbokk Abu Taha Mahmad Alioune Guèye di leen ko indil aljuma ji nag ci waxtu wi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu seen émission alhuda ñëwaat na tey ngir ànd teeg yéen ci tomb bu am solo ni ngeen ko xamee tomb mi muy waxtaan yëpp am solo ndax defa lëkkaloog téere borom bi subhaanahu wa taala waaye ñu in tey tomb bu am solo di xaalu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma alquranul karim taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim maanaam bu nuy jàngat dundu yonent bi sallallahu alayhi wa relation bi mu amoon ak moom nan la daan dundee moom ak yenn situation la daan am ak alquranul karim tomb bu ama ama am solo la tey nag maa ngi jàkkaarloog sama xarit sama doomi ndey Oustaz Abdou Aziz Thiam euh, moo gunge ñu ci plateau bi tey dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu ganalee ko bàyyi ko mu doxal ñu topp ci ginnaawam Oustaz Abdou Aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateur u Tawhid TV yëpp. Mhm. Euh, di ci jiital euh, ki nga xamante ne bi moom la yàlla may mu samp kër gi. Mhm. waaye ak mbooleem ñi ko ci jàppale ngir euh, kër gi jëm kanam ñu nuyu leen bu baax a baax a baax waaye di la nuyu yow tamit bu baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla subhaanahu wa taala euh, comme ni ma koy faral di waxee rek émission bi bokk ci euh, samay samay émission préférée comme ni ma koy faral di waxee ndax am solo gi mu am solo yàlla doon njëriñ ci man waaye doon njëriñ ci képp ko xamante ni bii rek yaa ngi toog di seetaan euh, alhuda mhm. euh, fii ci Tawhid TV mhm. noonu lañ leen di nuyoo rek di la euh, sant bu baax a baax a mhm. baax ci ak di la gërëm ak di kontaan ci bokkaat ak yow plateau bi nga xamante ni bii mooy alhuda asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Abdoul Aziz tey xam naa ni sunu gan nga ci plateau bi kom ni mu daan demee léeg <laughs> gan nag des koy ganalee <laughs> kon tey moom dañuy ganalee Eh, nga nga jiitu ñu topp sa ginnaaw. est-ce que tom bi ñu bëgg nabi sallallahu alayhi wa sallam alquran noo ko tëral rek incha allah nu ànd doxe ko noonu. incha allahu rabbi xam naa kon <laughs> eh, balaa ñu ciy dugg rek. Mhm. damay wax boo paree fii rek nga jaar euh, fee fay ndax xam naa ni thème bi thème mu thème mu à l'école la. Eh, ah jël ko ci man xam naa ni xaw ngaa tiit tuuti moo tax nga. baax na baax na rek <laughs> loolu buñ ci duggee di ngeen ci de ndax émission diine yëpp ci alquran la aju te man maa ngi émission bi alquran. waaw yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag alquran ñëw moom moo indaale alquran bi. sallallahu alayhi wa macha allah comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. xaalu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mm. ma alquran mhm. loolu moo xam naa ni eh, kenn ku ci nekk rek war nga cee bàyyi xel bu baax mhm. ndax i yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ni mu meloon ak alquran mhm. képp kuy jullit war ngaa fexee mel noona ndax comme moom la ñu yàlla joxeñ nii moom laa leen royloo moom hmm. laa leen topploo bu ngeen bëggee jub hmm. te njub li mooy alquranul karim mooy yonent bi hmm. sallallahu alayhi wa sallam kon ni mu meloon ak alquran nga xam ni mooy ñaar yoo xam ni kenn kenn kenn mënu ko fee bàyyi sa àdduna jàkk sa àllaaxira jàkk mooy ñaar yoo xamante ne bi kenn du ko fi bàyyi mukk mhm. si àdduna neex sa mhm. àllaaxira neex mhm. ku ko dummuyu rek lu sa àdduna neex neex neex neex neex jàpp nga da ngay jàpp ni dafa neex te fekk neexul kon képp kuy jullit rek war nga bàyyi xel bu baax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppee woon alquran nga jàppee ko noona kon xam naa dañuy koy tënk rek ci ay point ndax temps bi du ko maye lool waaye bi ci njëkk rek mooy euh, gëm nañu ni lay amatul lu tax lay amatul mooy mhm. alquran wàcc na mhm. nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wa a gisee woon eh, jërëjëf Cheikh Abdou Aziz eh, niñ ko niñ ko lay taaye noonu mhm. eh, relation alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam effectivement mooy relation bi jullit war am ak alquran donte nag ñun en tant que ay jullit léeg-léeg ñoo xam ni li yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi mu nekk maasuum ak fi mu ko jaarale yëpp noonu jaaruñu fa léeg-léeg ak rëcc am suñ dëgg ak alquranul karim mhm. waaye yonent bi sallam relation bi doxoon ak alquranul karim rëcc mosu ci am ci genn wàll allahu te relation bi war a dox julit diggante julit ak alquranul karim hmm. exact mooy relation bi war a dox diggante jaam bi ak boromam subhaanahu wa taala allahu akbar <laughs> ndax jaam bi boromam la war a jaamu mhm. te boromam boobu muy jaamu fi mu ko leerale ni mu ko war a jaamu mooy ci alquranul karim donc li ñuy faral di gaar nun léeg-léeg na ko yéen saa sallam waxoon saxaaba ba saatun wa fasaa fa saa mhm. euh, gannaaw ba nga xam ne ni ñëw ne ko damaa naafeq ndekete te yëguma ko woon Hanzala yonent bi ne ko ëpp naa def bu ko waxte mun ko li may yéeg bu ma toogee ci yow bu ma delloo kër ga ba dem ca jur ga dugg ci njaboot ga rek day mel dafa rëcc yonent bi ne ko noonu la da ngeen yéeg ak a wàcc ni ko li ngeen yéeg ci sama kanam xaala bi ngeen di nekk boo leen nekk sama kanam boo leen ko continuer woon cig mbaax da ngeen di dem ba àgg malaaka yi di saafonte gën ci biir mbedd Medina ak seen kawlal yi ndax mbaax gu gu gu ci kaw allahu akbar yonent bi nag daa nekkoon foofu ah. moo nga déggan léeg-léeg mu ni gars yi jibril nuyu la diw nuyu na la malaaka sàngam ñëwoon na fi sànq <laughs> sallallahu alayhi wa sallam ko waral mhm. mooy jokkoo gi nga xamante nii moom la jokkoo ak borom moom jokkoo ko ak alquran al karim mësta mhm. dog te jokkoo dëgër la goo xamante ni dafa àgg ci sommet dëgër gi dëgërug jokkoog yonent bi sallallahu alayhi wa ak alquran ak jokkoo mën na koo gën a dëgër gu ñëw rek ci suufam lay nekk hmm? maa la ko wax loolu daa tax buñ jàngatee dundam yu bare bare lañ ci fekk waaye ni nga ko waxee tom boobu nga si junju mooy yonent bi ku yëgoon ni alquran aw lay la ci moom aw lay la ci xeetam hmm. lay la ci moom lay la ci xeetam lay la ci xeetam kon lay amatul lay amatul allahu akbar wa ma kunna muadibina xatta nabaata rasula la la alquran wax hmm. yàlla nee na aw xeet du ma leen fudd mukk ci bàkkaar yu ñuy def lu dul damaa yónni bi yonent jox ko message mu indi leen ko leeral leen ko ba pare ginnaaw bu lees message leeree nag lay amatut li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul <laughs> uh-huh. yon saa sallam yëgoon na loolu bu baax yëg ne ëllëg dina taxaw seede aw xeetam allahu akbar yëg ne tamit see xeet bi ci boppam dina leen laaj ñu seede yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? waaw fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin yàlla nee na hmm. ñi ma yónni woon ci ñoom yonente yi di xeet yi daa laaj waaw yonente yi ñoom biñ ñee nun def xeet yi wax ah sunu yonente kat def na nangam wax na nangam def na nangam wax na nangam ñu ni waaw yéen toog leen waaw yonente bi yéen yow kaay bi nga leen waxee loolook def lool ñoom nu ñoom nuñ def nuñ def maada ujibtum ak maada ajabtumul mursalin moo ko moo ko <laughs> nee na yonti dinaa leen kaa leen yéen maada ujibtum waa bi ngeen wootee luñ leen tont ñii mu xeet yi mun leen yéen maada ajabtumul mursalin bi yonent yi waxee loolu leen tontu loolu leen tontu. seedante yonent bu ku yëgoon loolu la ku bàyyi woon xel loolu la ba léeg mu ko daan àgg ci moom di ko jooyloo. Abdullah ibn Abbas radiyallahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa maa wax ne iqra alayya. iqra alayya jàngal ma alquran. <laughs> jàngal ma alquran Abdullah ibn Mas'ud te yent bi alquran wàcc ci moom wallaay ndeysaan looloo ko jaaxaloon sama Abdullah ibn Mas'ud ndax ba ko yent bi xam dana ko yaa rasulallah aqra'u alayka wa alayka unzil hmm? moo ndax dama la koy jàngal te ci yow lan ko wàcce <laughs> yaa ciy saab sëriñ ce yoon saa sallam na ko ah kay dama koo bëgg a dégg ci keneen ku dul man jàngal ma allahu akbar loolu daa am solo nit lu man man alquran di ko jàng hmm. léeg-léeg muy déglu ñu di ko jàngal daa am lu muy def ci moom wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan allahu akbar awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim ni jàng gi baax na lool njëriñ yu bare ngi ci waaye di déglu ñu lay jàngal la koy jàngal lu baax la lu ami kii la yonte soo sam ne ko jàngal ma Abdullah ibn Mas'ud nee na ma dal suratu di jàng di jàng di jàng ba agsi ci fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahid wa jinaa bika ala haulai shahida nekk dina ñëw ma woo seenub yonent mu seede leen dégg nga Isa mhm. indi indi sa yi nga seede leen ndax di xalaat bis booba allahu effectivement ndax aw xeetam du ñu def loo xamante ni faaw mu wax ko borom bi subhanahu wa taala xam nga mhm. inna mhm. Eh, eh, wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittaxadu hada alquran mahjura wax ko ko mhm. ndax xeet wi am na ñoo xam ne gàdday nañ alquran waaye du ko neex la ko doon neex mooy la muy wax yonent boromam yépp ci xeet wi mu nekk la mu leen seedeel nekk lu ko bégloo moom di bégloo borom bi di jural xeet wi teraangay àdduna ak jollaxira allahu akbar yenn saa sallam bi mu xalaatee ci boobu dafa jooy wala am na sonne dafa saak ma gis mu yëngal sama tànk naan ma xasbuk hmm? doy na doy na nee na ma fekk rango jaa ngi na bu baax ni alquranul karim lay la ci aw xeetam lay la ci moom moo tax bu ëllëgee yowmal qiyaamati borom bi dina woo xeet wi ñu seede ko mu woo ko moom tamit mu seede xeet wi te loolu da ko doon bàyyi xel bu baax a baax ci alquranul karim. allahu eh, akbar Cheikh Abdoul Aziz. macha allah macha allah. Eh, yaram dafa daw hmm. ndax ku toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit bu nekk war naa góorgóorlu hmm. ba bu ko yàlla woowee di ko laaj lan la sa xeet yu doon nan nga nan la sa xeet yu meloon hmm. bu koy tontu mu tont ko lu neex kon loolu euh, responsabilité bi nekk foofu tamit jullit bi war na ko bàyyi xel bu baax a baax ndax digganteem ak yonent bi ndax kenn bëggul ànd ak sa wayjur dem police sa wayjur di nga ñu ñu lay laaj ci sa wayjur wala boog ñu di laaj sa wayjur yu baaxul xam naa loolu du ñàkk nga nga <laughs> nga may naa la benn thème incha allah ci à l'école du prophète leen <laughs> mooy àq yonent bi ci ñun ak yan àq lañ yoreel yonent bi bu boobaa yow laa ci invité rek ak Makhtar Sylla rek <laughs> incha allah incha allah incha allah yàlla yàlla bala jëriñ amiin yaa rabbal alamin eh. eh, alquran mi ngi noonu ak mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon kon eh, yonent bi bàyyi woon na xel loolu bu baax a baax mm-hmm. bàyyi xel alquran waaye bàyyi xel bés bi ko yàlla di laaj loolu moom it ba tax na yaakaar naa ni amuloon temps bu muy toog di tàqalikook alquran euh, euh, mhm. nan la ko daan nan la ko daan euh, jànge ndax daf ko mhm. daan jàng par semaine wala mhm. par weer wala par at la ko daan jàng wala nan la ko daan def Cheikh Abdou jox naa la sànq ni <coughs> jokkoo gi yonent saa sallam jokkook alquranul karim jokkoo gu dëgër la ci wàll gépp ci wàllug yëg ni alquran xujja la leer na waaye wàll gépp googu da i duggaale wàllug doon ko jàng ndax alquran des ko di mm. jàng lu may faral di wax ni ni julleeg woor ak azakaak dox mbokk nekk ay ndigal yu yàlla digale ci alquran mhm. noo nii la jàng alquran nekk ndigal lu yàlla digale ci alquran al karim hmm. loolu feeñ na ci ay barab utlu maa uxiya ilayka min alkitab loolu lay firi mhm. wa qul innama umirtu an abuda rabba hadihi albaldati alladi xaramaha mhm. wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuminina wala min almuslimina wa an atluwa alquran loolu lay firi ak yeneen barab ak yeneen barab yow saa sallam wax baat bi iqra'u iqra'u alquran waaw waaw jàng leen alquran yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la ko boole lépp lu mu doon digale di ko sant jullit ñi pour pour ñu def ko ci ay jaamo mhm. moo ci njëkkoon te gën koo mm. man gën koo rafetle moo tax yàlla chartal sax ni ku ko defee wut nu mel ni ni mu ko defee sa kem kàttan du ma ko nangu <laughs> moo tax bu ñëwee ci jaamu yàlla ak jàng alquranul karim mhm. dañuy gis ne dafa taq woon ak moom lool lool lool daan jàng alquran jamono ju nekk est am na benn délégation bu mas a jógee ca banu thaqif mhm. seet si yonent bi sa alayhi ci Medine yonent saa sallam leen ci jàkka ji léeg bu ginnaaw geewaan mu génn ñëw ak ñoom maanaam ginnaaw geel daan ñëw ginnaaw bu mu amee ñum leen booleel waxtaan ak ñoom di leen ganale ci bëccëg gi bu mm. jullee gee pare ñëw fa nag moom agsi fa mm. waxtaan ak ñoom naka bis bi naka journée bi baa ngan gi kiiwul daal dem doog a nekk ci mbiram am ci bis boo xamante ni daa yéex a ñëw lool daa yéex a génn gaa yi miin nañ génn googu waxtoo ci moom ñoom gan ñi mm-hmm. am ci boo xamante ni nag moom daa yéex a génn ba bi mu ñëwee gars yi ni ko ah tey de moom dañ laa xaw a yéex a gis ndax mbégte mu doon am ci teel koo gis moo tax ñun kenn ci ñoom ko yaa rasulallah labista anna layla akthara mimma kunta talbis mhm. ah yonente bi saa sallam de bi nga toog tey génnoo moom moo ëpp ba nga naan toog xaar nañ la lu yàgg sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne leen naam waaw waaw damaa xawoon a yéex jàng sama bind sama wird quraan te bëgguma woon a génn te jànguma ko bëgguma woon mu rëcc ma tey moo tax ma doon ko jàng doog a génn gis nga loola <laughs> kon lépp lu naroon a gàllankoor mu jàng alquran ci bis bi loola dana xaar ba mu jàng ba pare mu doog caa ak lu mu mën a doon <laughs> ala loolu day firndeel ni kon da daan jàng alquran bis bu nekk hmm. lu bokkul ak li ko jibril daa ñëw di jox muy jàng lu bokk la ba mu paree daan nafar ak jibril alquran at mu nekk koor gu nekk riwaayaat yi doon ñëw ñoom téewul amoon na wird quraan yi yow mii boo xamante ne moom daawu ko jëlal sallallahu alayhi wa sallam kon loolu day wane ni ndigal loolu mu jox ngir ñu takkook alquran di ko jàng bis bu nekk mhm. moom ma nga ci woon waaye joxoon na ko yittey joxoon na ko yittey lu ko na nga a gàllankoor loola xaar ak loolu lu mu am am solo loola xaar ba mu pare ci loolu dëgg ñëw ci lii Cheikh Abdoul Aziz macha allah <laughs> loolu am na solo loolu mm. it nag euh, kenn ku ci nekk war nga cee mën a bàyyi xel bu baax mm-hmm. ndax di ko taqoo ak euh, di taqoo jàng alquran mm-hmm. ndax euh, sunu mag ñi ñoom it mm-hmm. radiallahu anhum sunu mag ñu baax ñi kenn ku ci nekk rek amoon na heure boo xamante ne bi bu heure ba bu jotee moom loo doon mën a def ak lu mu mënti doon ak bu la gan seet seeg gan seetiwul njàng alquran moom di nga ko def ba pare balaa ngaa génn kon loolu léegi man image yi des ci ñenn ci mhm. mag ñi nga xamante ni xaw naa xàmmee tuuti xam leen mhm. Sénégal gépp ah ñoo ko bokkoon waaye rawatina dëkk ba ma dëkk fa laa gën a gone moom image bii des ci man ci mag ñi mhm. ba léegi satala la waantaay ak jukkib alquran ak jukkib boo leen fekk <laughs> ñu ngeeg seen jukkib alquranul karim est-ce loolu da ngay da ngay da gis uh, liggéey bu rëy bi ci uh, Cheikh Ahmed Tijani Seck liggéey rek radiallahu nga xamante ne bi Serigne Abdoul Aziz Al ak nañu ko bëggee woon ndeysaan nga xam ni nu ne nu ne rek defee nañ ko alquran eh, yàlla na yàlla fayal ñu leen na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp insha allahu rabbi eh, jàngum alquran gu bari mm-hmm. xam nga taquk nit mm-hmm. maanaam li li li wolof njaay di léeb léeg-léeg nii mm-hmm. eh, maanaam niru niru niru niru lu dara maanaam takkoog moom di ko niiri niiru day dem ba da ngay faf nduróog loola dëgg la yonent bi sa alayhi wa sallam nan la daan def ak alquran ci ay jikko Cheikh Abdoul Aziz euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yor kaamil bii li ñuy jàng mhm. di alquran mhm. jàppal ni ak dundam mooy alquran yi ay jikkoom jëflanteem waxam waxinam loolu moo nekkoon alquran yi jëf Hmm, kon al bu maanaam li nekk ci alquran ci jikko yëpp. Hmm. yonent bi daf ko pratiquer ci ay jëfam ak jikkoom ak waxam ak waxam euh, jëflanteem. kon bu ma la déggee daal ci gàttal alquran ñett la bi ñu bind bi ñu hmm. jàng ak bi ñu jëfe lii ci kaamil bi lii ñu téye. mooy bi ñu bind bi. alquran la waaw boo waxee. ñu dégg alquran alquran nga jàng waaye boo jëfee tamit li li li nga wax li nga jàng wala li ci taamit bi li nga xool jàng ko moom nga war a jëfee moo war a feeñ moo war a feeñ ci bi koy looloo ko fi indi sax eh, allahu akbar looloo ko fi indi <laughs> alquran li ko fi indi hmm. mooy defar si ñu huwa alladi baata fi l ummiyina rasulan minhum hmm. yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim hmm. wa yuallimuhum alkitaba walxikma damay faral di wax ni nit ki li ëpp solo lu muy am mu jariñ ko àdduna ak àllaaxira mooy ak njub mhm, mhm. njub ak njub nag mooy jikkoy rafet mhm. moo tax borom subhaanahu wa taala ci biir faatiha la ko dugalal farataal ci ñun ñi di ko jàng dix-sept fois lu mu néew néew néew néew ci journée bi <laughs> bis bu nekk rek ñu ñaan ko ihdina siraatal mustaqim wallaahi waaw waaw yàlla nun de ak njub lañ bëgg teg ñu ci yoon wu jub bi di ko ñaan allahu akbar yonent bi saa sallam ni boo ko ñaan loolu fekk yaa ngi góor lu foog ko ñaanee rek mun la may naa la ko wala abdi ma saal hmm? <laughs> ñaan googu mel ni borom santal dañoo teel a répondre teel ñoo joxoñ lii ngeen may ñaan li may wax yonent bi ni li bi wax ni nee naa may naa leen ko fii laa leen ko maye uti leen ko fa muy alquran al karim hmm. moo tax bi fatiha daanoo rek suratul baqara nga tijji alif laam miim hmm. dalika alkitaabu téere bii hmm. ñu ne amu ne laa rayba fii loo ci fekk rek jëlal luñ ciy sikki sàkkal amu ci <laughs> laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi allahu lu ko waral tanzilum min hakimin hmm. hamid loo ci fekk jëlal nga ni ah kon de bismillah mun la hudan <laughs> li nga ma doon ñaan nag ci ginnaaw te yonent bi ni bu dëggoo ci yaw yow mani la may naa la ko hmm. may gaa ngi nii jëlal boo koy dundee du jub li tax yonent saa sallam gën a jub ku dul moom hmm. alquran li tax mu gën a rafeti jikko ku dul moom jikkoy alquran <laughs> kepp allahu akbar loolu yi su ne Aïcha radiyallahu anhu da koo firndeel hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu Aïcha dañoo laaj yonent bi sallam ni ko lan moo nekkoon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana xuluqu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alquran mhm. xadis boobu mi ngi ci Abu Daawud ak Muslim ak Ahmed mhm. buñ demee ci Muslim dafa dolli yaxdabu li gadabihi wa yarda li ridahu mhm. jikko yonent bi sallam kon moo nekkoon alquran bu daan mer lu alquran mer lu la bu daan bég lu alquran bég lu la alquran moo ko doon orienté yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon jikkoom yëpp ci alquran karim la ko bépp jikko boo gis alquran soññee ci hmm. digle ko yonent bi jikko woon ko ci niveau ba gën a kawe bépp jikko booy dégg alquran euh, ŋàññ ko tere ko wax nit ñi nañ ko fañ nañ ko daw yonent bi sori woon na ko ba gën koo sori ñëpp moo tax yonent bi alquranul karim ci suuratul qalam bi yàlla di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo tagg ci wàll gu nekk nag mhm, mhm. ndax wàll gu mhm. nekk moo fa raw kudul moom kudul moom wallahi ndeysaan min kulli wasfin hamidin xaaza afaala tafdilin wallahi <laughs> ndeysaan wàll gu nekk moo fa rek moo fa mën kudul moom <laughs> ndeysaan sunu mel bu baax mu mu dëkk Canaba Cheikh Tidiane Balla tudd nee na buñ ne yonent bi moo fi raw moo fi man moo fi moo fi moo fi am na ñett muy wax mu ni ma am na luñ ci war a dolli loo xam day gën a matal wax ji man ko leen mën ma fuuf <laughs> kon wàllu goo ko natt rek moo fa man kudul moom fuuf fuuf <laughs> waaw wallahi ndeysaan <laughs> waaye yàlla am wàll gum mu mooy wàll gi nga xam ne yonent bi dafaa fésale alquran hmm. ngay jikkoom nuun wal qalami wa ma yasturuun maa ngi giñ ci xalima ak lépp lum bind te lii am lépp ciy dogal yàlla ne na dama ko bind mhm. ci xalima maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun gars yi hmm? dañoo def ne da nga sama xel daa neexul dañoo xamul li xew xamuñu li xew wallaahi xamuñu li inna laka la ajran xayra mamnun góorgóorlu rek lu mett mett mett ak lu ñu bañ bañ bañ mi ngi lay xaar ci sa borom pay gudul dog mukk allahu akbar la ala xuluqin jikko <laughs> Abdul Aziz xoolal waxee ni wa innaka mhm. la ala xuluqin azim wax ji rek dafa rëy waaye ki wax wax ji gën a rëy wax day tolloog day borom <laughs> moo tax ku tagg nit tagg googu taggug lislaam moo koy féete kaw waaw waaw bu wuuteeg ni lislaam taggloon nit rek kooko waxul am al l'islam moo wax li am mhm. moo tax ab jaam it ku ko tagg ku nekk boroomam tagg ko moo gën fete féete ko foofu waaw waaw wa innaka la waaw kon luy jikkoom yeneen sunu Aïcha ne kaana xuluquhu alquran allahu <laughs> kon sallam relation ak alquran bokkoon na ci jikkooy alquran la jikkoo moo tax mu gën kudul moom man kudul moom sut kudul moom fuuf ci ñetti yëpp <laughs> nga dolli ko ko ba tax joxoñ ko ñu ne nekk la ala xuluqin azim suñu Aïcha tënk ko ci tënk gu yaatu googu mhm. luy jikko yonente bi nekk fa muñ nangam nangam di lim dane alquran rek wasalaam <laughs> mu jeex tànk <laughs> na allahu akbar eh. donc boo fa nekkee di lim tam nga indi benn boo boo xamante tam nga fàtte yoo xamante ne. day guddal parce que day koy guddal waaw. day fa mën a nekk di lim benn par benn. kon boo nee alquran rek. Mhm. lépp mhm. ci biir dugg na ci biir. allahu akbar yal nañu ko yàlla may. yal ko jàng fu ñu toll. waaye it nag mu am lu am solo loo xamante ni. Mhm. war nañ cee bàyyi xel. Eh, léeg-léeg nga gis koo xamante ne bi dëgg la mi ngi jàngal Quran. Mhm. mi ngi koy mi ngi koy mi ngi ci jéem. di ci mhm. jikkoo. Mhm. waaye eh, day am lu bare bare bare lu des. mooy di ko bàyyi xel ak di ko fuglu. macha allah jazakallah xeer Cheikh sa tomb yi. ñu ko tegalee sax dafa am tasalsul <laughs> ndax yëg ne alquran aw lay la. moo lay poussé ci nga di ko jàng. boo koy jàng mooy may nga gis yoo xamante ni. ay jikko la ci nga di ko góorgóorlu. di ko jikko yooyu nag li la koy feeñalal. di la ko wan nga di ci bàyyi xel bu baax a baax mooy di ko tadabbur mhm. damay faral di wax ni at tadabburu di settantal mhm. mooy machine rakkal bi nal alquran ji teg ci alquran yeeg sunna yi muy sotti diwug leer ci xolub julit allahu akbar moo tax alquran wax ni mhm. bokk na ci li tax alquran ñëw fii mooy ngeen koy tadabbur hmm. tadabbur googu ngeen koy tadabbur moo may ngeen jariñu ci hmm. kitaabun anzalnaahu ilayk wala eh, liyaddabbaru ayatihi hmm. laam googu laamu taalil la ngeen settantal ay alquran yi hmm. borom bi subhanahu wa taala ni afala yatadabbaruna alquran walaw kaana min indi gayrillahi la wajadu fi la wajadu fihi ixtilaafan kathiira cey xanaa da a ji cey ko keneen waxoon ku dul yàlla li ngeen ciy gis ci yu wuuteeg yu juuyoo ak ay bari waaye moom ba mu ne rek la ni doo leen ci gis ak wuute doo leen ci gis ak juuyoo dalika alkitaabu laa rayba fiihi laa rayba fiihi cey am jaahum maa lam yati aabaahum alawwalin moo da ngeen dul seetantal alquran ji wala alquran ji fa ñëwoon ca yonent bi ak saxaaba yi ba defar leen daa bokkul ak ji ba tax mënu leen defar ah kay nun ñoo bokkul ak ñooña ndax ñooña dañoo fooroon lool ci mhm. tadabbur mhm. te ñun ñu xaw cee sàggat moo tax nañ ca daan jariñoo maanaam machine ràkkal bi ñoom dañ koo amoon di ko utiliser moo tax mu doon sotti bu baax jamono ju nekk di leer ci seen xol mhm. waaye nag nun buñ ko amee it man naa melul na mu war a mel wala sax am na ci ñoo xam ne amuñu ko. moteur moteur bay kuule fi mu toll nii ah. te defaratuñ ko. moo tax it moteur bay kuule. ba sama sama baay rahmatulah daan wax ni. <laughs> yàlla ma taxawoon fa mu taxawoon. Hmm. yor la mu yoroon. Hmm. ma nga fa di xaar ñamu mayoon fañ taxawoon ku fa taxaw mu jox leen la leen joxoon. maanaam yàlla joxoon as saxaaba hmm. donte ñoom ñooy ñi gën ci xeet week yooyu waaye mbaax gi yàlla joxoon magi diine ji. mi ngi mu yor ba léegi di xaar ku bëgg a baax ni ñoom nañ bëggi woon baax rek mu may lak mbaax may lak mbaax allahu akbar waaw bokk na ci bunt yi nit di taxaw nag pour yàlla may ko mbaax may ko leeru xol leeru biir ak biti hmm. jariñ ci alquranul karim mooy at tadabbur seetantal hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam point boobu it mu marqué ci lu yaatu a yaatu est-ce que ci tadabbur hmm. alquranul karim eh, xudayfa nee radiyallahu anhu dama ànd ak Yonent sallam doon julli genn guddi da daa kàbbar ma kàbbar ci ginnaawam nee na di julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng Fatiha nee jël Baqara hmm. sori ju lool <laughs> xanaa bu jeexee mu rukuwaat mu jël mu sori ci lool nee na mu naan xanaa bu jeexee nee na mu jël nisaa yi nee waaye li ma ci yéem ci julli guddi googu ma àndoon ak moom mooy ni yonent saa sallam doon bàyyee xel alquran ji ak aaya yi ba tax aaya bu mu romb rek la muy wax di nga yëg bu dee ndigal lum digale ci tasbiix nee na nga dégg mu sàbbal bu dee aayab aljana nga dégg mu ñaan yàlla aljana bu dee aayab sawara nga dégg mu yàlla moom musal ko sawara bu dee aayab bi santaane sant yàlla nga dégg mu sant yàlla doog a wéy bari waan sama kaas koo xam dañuy jàng alquran pare jóge fañ doon jàng ñëw toog lu dul benn minute fàtt nañ ban aaya lañ jàngoon wala laaj lu muy wax wala jàng nañ par sax mhm. bàyyi wuñu xel bàyyi wuñu xel loolu ak ñàkk tadabbur la mhm, mhm. kon julli Xudayfa loolu yi mu nettali day wan yéen saa sallam jamono bi mu jàng alquran mi ngi doon settantal di bàyyi xel kii wax waaye di bàyyi xel li muy wax hmm. ba tax luñ ko ci sant rek fa saasa mu daal di koy def dogo yi ca kii boobu loolu day wane ni da daan sàbballu da daan bàyyi xel alquran ci settantal lu bari bari nettali googi bu xadeefe mi ngi ci muslim su ne Aïcha radiallahu anhu nee na yonent bi àggoon na ci tadabbur jenn laayee jullee na ko guddi gu mat sëkk benn aaya waaw di ko baamu rek bu baamoo ba laaya ji daanu ñu def ne day ne lim ci xalaat jeexagul mu jëlaat laaya ji bu daanoo ñu def ne day kiyaat sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yéeme na moo tax umu salama radiallahu anhu bokkoon na li tax yonent saa sallam di tadabbur alquran lu bari mooy li ko daan dimbali ci tadabbur gi njàng mu teey la daan jàng njàng mu set nee na yonent saa sallam buy jàng alquran day mel dañ la koy firil yow <laughs> ci ni muy jànge su ne Aïcha nettaliwaat ni yonent bi bu daan jàng alquran ku bëgg a wàññi baat yi muy jàng ci maqta bi yëpp mën nga ko xaw waññi ndax njàng mu diib mu teey bu jàngee baat bi rek ci saa si day am lu muy def sam xel waaw kon yonent sallam ku mënoon a settantal alquranul karim la Cheikh Abdoul Aziz moo tax alquran jëriñ ko lum jëriñul ku dul moom allahu akbar <laughs> macha allah foofu am na solo mm-hmm. kon settantal alquran it lu am solo la ci mm-hmm. ci njàng mm-hmm. eh, rawatina koo xamante ne bi xaw naa xamas tuut li alquran di wax boo koy settantal dina am lu bare bare bare lu mu changé eh, bu ñu dellu ginnaaw tuuti rek eh, ci taxalluqu Euh, maanaam jikko yi muy jikko alquran mhm. te nga doon wax ni mhm. euh, sunu borom subhaanahu wa taala muy mhm. wax ni njub maa koy joxe yaa ngi ma yaa koy ñaan léeg-léeg damay faral di wax ni bi ñu waxee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu ñu yàlla ne woon continuer ñaan Mhm. ngay gis koo xamante ni bi àdduna rek lay ñaan yàlla sama kër gi yàlla sama terrain bi yàlla sama oto bi yàlla sama soxna si yàlla sama lii yàlla sama laa yàlla ne maa leen di orienté li ngeen may ñaan ihdina siratal mustaqim yàlla yàlla boole defal kon bu ñuy def tadabbur dafa am loo xamante ni mhm. euh, léeg-léeg nga gis ñu koy def mhm. am ñoo xamante ni bi dañ lay wax ni ñi dañoo waaneeg ñii dañoo dugg feeg ñii dañoo génn fee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nit daan jàng alquran mu koy déglu bay jooy mhm. mhm. bokkee ci jooy euh, jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz wax dëgg yàlla alquranul karim ak dayoom ak leer gi ci nekk ak mm. yu bare bari yu ci nekk saa bu ko nit tadabburee rek mm. dana ko jural xol bu tooy mm. te ab xol bu tooyee rek léeg-léeg am lu ko firndeel mm-hmm. ci nit ki dootul mën a mel ni ku mu mel ni ku ma ku tàggook sagoom dëgg la jooy ak yeneen ak yeneen mm-hmm. moo tax nga dégg alquran naan allahu nazzala ahsana alxadithi kitaaban mutashabiha ahsana alxadith ahsana alxadith li alquran alkarim kitaaban mutashabihan mathaniya taqshairu minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum allahu akbar allahu akbar da cay dawee ci mhm. alquran ji yaramu ña nga xamante ne dañoo ragal seen bu buñ jàngee alquran ñu xalaat ci settantal ko rek dootuñu mën a maîtriser seen bopp Hmm. ndax doole alquran ju biir ak doole alquran ju biti hmm. xoolal ida tutla alayhim ayatu rrahmani xarru sujjadan wa bukiya wa bukiya ñi nga xam ne ak ngëm daa seen xol hmm. alquran nee na bu ñu jàngee alquran ñu dégg rek da ngay ci saasi dootuñu mën a téye seen dañuy rot su jotal seen borom subhanahu wa taala waaye boole ko ki jooy tey kon ki nga xam ne mën naa am buñ jàngee alquran du yëg dara ci biir du yëg dara ci biti kooku léeg-léeg nay tuumaan ab xolam ndax wowul parce que deful tadabbur ah. <laughs> allahu akbar yàlla ñu ci yàlla musal <laughs> kon alquran moom bu ko nit ki jàngee hmm. wala ñu jàng ko mu settantal ko seet ko xalaat ci hmm. léeg dina def effet ci moom ci xolam te mën naa jur mu génn ay rangoñam te loolu daan gaar yonent bi saa sallam lu bare bare bare sax ak saxaaba yi mhm. Cheikh Abdoul Aziz waxuma jooy waaye boo jàng as-salaf ma al-Qur'an mhm. mag ñu baax ñeeg al-Qur'anul karim dañ da ci nett ñoo xamante ni dañoo jàngub aaya xëm moo gën a foor jooy waaw moo gën a foor jooy de am na ñoo xamante ni dañoo jàngub aaya wala ñu jàngal leen ko ñu dee dee ndax jaaratu ci seen borom subhanahu wa taala ndax effet bi alquran def seen xol mujj seen jëmm attanatu ko allahu akbar ñoo yey xoqa lahum dalik mhm. ndax law anzalna hada alquran ala jabal la raaytahu xaashian mutasaddian min xashatillah allahu akbar montagne ak ni toll ak am doole nga xam ne loo gis ci suuf gars ci ci am xam-xam ne nañ lu mu njool njool ci kaw lu toll noonu mi ngi ci suuf samp borom bi dëgërale ko suuf si nee hmm. bu ma wàcce woon alquran ci kaw mokk toj ndax ragal boromam subhanahu wa taala walaw anna qur'aanan hmm. suyirat bihi aljibaalu hmm. aw quttiat bihi al ardu aw kullima bihi almawta borom bi nee na alquran ji bu doon suuf see ko fi indi buñ ko jàngee tiim jàng ko suuf si mu xar ndax ragal borom subhanahu wa taala bu doon néew yee ko fi indi bu ñu duggee ci armée li jàng ko fi néew yi bu doon montagne yee ko fi indi buñ ko jàngee ci ñoom ñu faq daw ndax ragal seen borom subhanahu wa taala waaye ñii dund ko fi indi li yundira man kaana hayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin yéen ñii dund nag lu mu néew néew néew xanaa war a tooy seen xol génn seen rangoñ loolu yonent bi sallallahu alayhi wa da ko daan gaar lu bare bare Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa danoon jàng alquran bay jàng ca surat ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran na annas faman tabiani fa innahu minni wa man asaani fa innaka gafurun rahim di jàng tamit ci wet gi wax jooju yi nga xamante ni maanaam eh, wax eh, eh, maa ngi naan surat ibrahim sax laaye jooju yàlla da koy nettali ibrahim moo ko doon wax ak boroomam mhm. par rapport na waxeetam rabbi innahunna adlalna kathiran min annas ñii nga ma yónni ci ñoom day am na ñoo xamante ni yemuñu ci lank waaye lànkaaleel nañ ñu bare bari ci nit ñi fa man tabi'ani fa innahu minni ku ma wuyu si nag topp ma nangu ah kooku de ci man la bokk ndax yaa ko sant wa man hmm. asaani fa innaka gafurun rahim koo xam ne nag moom mooy na ma <laughs> ah yow de ku bari jéggal nga te ku mën a yërmande yërëma. li ñu maandoo dafa ëpp. wallaahi ndeysaan. li ñu maandoo dafa ëpp. dañ naan bàyyee yàlla ak ñaama fa innahu minni waaw ah, wan asaani fa innaka allahu akbar neew fa sax di ko wax naan ko lii wala la allahu akbar ndax xamul xamuñu woon léeg-léeg lu yàlla di dogal ci jaamam yooyu ëllëg hmm. moo tax dañuy bàyyi ak yàlla la ñëwagul ak i jaamam tey nee na mu jàng laaya jooju jàngaale laaya ji yonte yàlla di nettali yonte yàlla Isa doon wax ci xam naan in tuadibhum fa innahum ibaduk yàlla ñii day lànkal ma boo leen bëggalee say jaama yaa ko sañ ci ñoom <laughs> wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim boo leen jéggalee yaa not ci sa nguur yaa xerañ loo def noonu la doo juum gis nga mhm. nee na bi mu jàngee loolu di yëkkati loxoom daal ne allahumma ko jooy mu jàng ak lim ci dégg bi mu ko tadabburee hmm. ba tax moom it mu xam ni yëg na ni am na responsabilité ci suñ eh, laay eh, tomb bu njëkk hmm. ëllëg taxaw ak yàlla akoo xeetam am ñu mu wax ci seen digganteeg lu mu seede daal di jooy kon gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraan jooy nee na fa saasa yàlla ni jibril demal ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nuyul ma ko te nga ko yàlla na looy jooy te mu gën koo gën koo xam lépp ñëw ci yonent sallallahu ko yàlla ngi lay nuyu nee looy jooy yonent sallallahu wax ko li muy jooy te fekk yàlla ko gën a xam mm-hmm. yàlla ni waat ko dem demal ci moom nee ko idhab ila muhammad fa qul inna sa nurdika fi ummatika wala nasuuk nee ko dinaa ko bégloo ci xeetam lu ma ko ci wan mukk lu ko naqari sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala boole dëgg dëgg ci xeetu yonente bi allahu akbar amiin ya rabbal alamin sallallahu alayhi wa sallam kon gis nañu foofu Cheikh Abdoul Aziz mhm. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jooy na bu baax a baax ci alquranul karim ndax jàng na ay aaya jàngat yeneen aaya xalaat ci tax mu tuur ay rangooñam mhm. jooy ata dafa nettali nee na man ak ubayd ibn uh, ubayd ibn umayr dañu mhm. mas a ànd dem ci suñu aïcha radiallahu anhu nee bi ma dugg see sax suñu aïcha mi ngi tooñ ubayd naan ah, léegi nag moom seet suñu jot na sëkk xam naa da ko gëj a gis <laughs> <laughs> Eh, nee na ma ni ko yaay booy nit kat boo koy seet si maanaam léeg-léeg mu namm la tut da ciy neex quoi ndax day tax. nga ne rek gën a neex gën a neex waaw. booy dem chaque jour moom <laughs> mu ni ko da ngay lay rek <laughs> léeg donte ak segguñ ci shawahid mahalli shahid ci xadis bi. Mhm. waaye. ndeysaan ya koy jiital day neexal ak mbir yi daal. dëgg la <laughs> Omar nee ñu laaj su ne Aïcha ni ko dañoo bëgg nga nettali ñu mhm. loo mas a yi nga mas a gis ci yoon saa sam loolu ci gën a yéem loolu ci gën a yéem axbirina mhm. bi ajabi cheyin raaytihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu noppi tuuti daaj ni leen bis day guddi mhm. damaa toog ba yàgg yonente bi saa sallam yaa Aïcha yaa Aïcha man ko labbayk mun ma tey de damaa bëgg nga may ma ma wéet ak sama borom guddi gi yëpp ma ne ko yaa rasulallah may naa la ko doon te bëgg naa laa jige lool bëgg naa ngi nekk sans wet waaye nag loo bëgg bëgg naa ko may naa la ko sallallahu alayhi wa sallam <laughs> jàngat bu rëy sunu jigéen ñi war nañ cee jànge même sunu góor ñi war nañ cee jànge am ku ci am góor gu baax hmm. bay bëgg di julli guddi léeg-léeg hmm. may ko sax kay bàyyi ko mu jàmm borom subhanahu wa waaye góor ñi it war nañ cee jàng bu baax moo ne ku ci am góor gu baax <laughs> waaw li tax ma ne góor ñi war nañ ci jàng bu baax. waaw moom bu bëggee def na tàggu soxnaam balaa mu koo def. waaw tàggoo di moom xam naa borom benn jabar yi léegi léegi yal na yéen yàlla yor. bu ko defee. Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wax loo su ne su ne asama ko nee na mu jug jàpp. nee na julli. nee na bi mu kàbbaree di julli mi ngi jooy. di jàng alquran di jooy. ba sikkim bi tooy xëpp. nee na di jooy. di ba ba ba kanam gi tooy nee na muy jooy ba sikkim bi tooy xëpp nee na day jooy di jooy waxuma sikkim bi ak kanam gi ak kii bi waaye fi mu taxaw ci suuf rangoñu dafa tuuru ba suuf si tooy ndax jooy yi metti ci alquran ji muy jàng nee na day continuer di jàng di jooy di jàng di jooy ba njël jot mu mel ni ko yëgu ko woon sax ndax te tadabbur gu metti ci alquran ak jooy gi ba bilaa la mujj ñëw ni ko yaa rasulullah ndax mën naa nodd hmm? fekk moom mi ngi woon ci njàngum alquran ma ki jooy kon <laughs> alquran bu ko tadabbure rek moo am lu mu def ci moom li tax ma tadabbur nag moom muy góorgóorlu di fexe ab xolam di am ak ngëm mhm. fa ama alladina amanu fa zaadathum imanan wa hum yastabshirun cheikh mm. ci tomb bu tooy ab xolam ba mu ciy jooy mm. yéeme woon na ci ba ki nekk ko nekkoon ak moom ci dundam su ne aïcha radiallahu anhu anha bokk ci ñu ëpp lu ñettali ci moom bi ñu ne lu la gën a yéem question bi dafa rëy de. li la gën a yéem. ci koo xamante ni daa takk woon ak moom soxnaam la woon. Mhm, mhm, mhm. xam ci moom lu bari gis ci moom lu bari yu baree bari ñu xam mu nettali ko ñun ko waaw li nga gis ak li nga xam ci internet bi loolu la ci gën a yéem mu ne xanaa guddi goo xamante ni daa taxawoon di julli di jooy di julli di jooy ba suuf si mu taxaw. taxaw xepp ndax rangoon ñu bari lu mu doon jooy. waxi borom bi subhanahu wa taala allahu akbar allahu <laughs> akbar macha allah xam naa ni gaa ngi may day ni waxtu wi di des bariw ndeysaan ko defee nu waaw mu ngo kon kon xam naa ni tomb bi tomb bu mujj bi ma lay mm-hmm. <laughs> laaj rek xam naa ni mm-hmm. ci lañ koy tënk sax benn yoon mm-hmm. mooy eh, ñaan ñaan ci alquran chabdulage yonent bi sallam ñaanam yëpp daanaka alquran al karim la woon mm. damay faral di wax ni bi yàlla neen saa sallam wa laqad aataynaaka sab'an min al mathani wal quran al azim mm. jox naa la fatiha ak alquran loolu doy na waar de mel ni ko loo bëgg sama digganteeg yow hmm. ñaanal rek bari waan lu ñuy ñaan da ñaan jàng faatiha <laughs> ndax dayoo beeg barke beeg yooyu jublu ci tawassul ci njàngum faatiha ji hmm. ñaan yàlla subhanahu wa mu faj aajo yi hmm. wal quraan al azim laneen loo bëgg ci àdduna ak alaaxira ci teraanga mi ngi ci alquranul karim kon sama digganteeg yow mm. ci ñaan mu nangu am nga ko sama digg ak yeneen sa digg ak yeneen ci ay teraangaay àdduna ak alaaxira lépp am nga ko ci alquran am nga ko moo tax ba mu ci daaneel dani ko mm-hmm. laa tamuddanna aynayka ilaa ma mattaana bihi azwaajan minhum bul xoolati ku ma jox leneen te joxuma ko alquran <laughs> ndax yaa ëppale ku dul yow am fa neen foo xam dani ko zahratal da caa teg ca taaha mm-hmm. zahratal xayaati dunia li naftinahum fii wa rizqu rabbika xayrun wa abqa allahu akbar moo tax saa sallam ñaanam yëpp Cheikh Abdoul Aziz alquran la woon mhm. loolu xadis yi bëree bëri nett na Kurayb mawla ibn abbas radiallahu anhu neen ibn abbas nee na ko bis mu fanaan ci euh, soxnaam suñu wax Maymuna mhm. bàjjanam la woon soxna seen saa sallam bàjjanam la woon nee na ma tëdd ci eh, catub lal bi ngegenu ci nee yenn yéen salaam tëdd nena na nelaw ba yàgg bi guddi gi xaajee nee na saa salaam jug eh, ñaan jàng aay yi mujj fukki aay yi mujj ci suratu ali imran mm-hmm. fukki aay yi mujj ci suratu ali imran gis ñu kon la gum def ci guddi gi bi mu yeewoo waaye loolu tamit feeñaan na bu baax a baax ci yeneen i barab yon saa sallam uqbat ibn amir nee na amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam an aqraa bil muawidati dubura kulli sala yonent bi damaa digal may jàng falaqeeg naa si ginnaaw jilli gu nekk hmm. di ko musloo kon ku bëgg muslaay alquran day musule rawatina ci ñaari aaya yooyu hmm. abu umama radiallahu anhu nee na man qaraa yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam man qaraa ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktuba lam yamnaahu min duxuli aljannati illa an yamut hmm? ayatul kursi yu nekk ci suratul baqara xisbu ah. tilka rusul yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ku koy jàng ginnaaw julli gu nekk dee moo la tee dugg aljana jàppal ni jël nga sa caabi aljana ba pare booy dee dem aljana loolu alquran la said euh, saad radiallahu anhu mm-hmm. nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na daawatu dhin nuun mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin Dhunnuun moo nekkoon Yunus. Mhm, wa dhannuuni wa dhannuuni id dhahaba mughaadiban. cay sunu sunu alfa. fa dhanna an lan naqdira alayhi fa naadaa fi dhulumaati an laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina z-zaalimiin. Mhm. Saad nee na radiyallahu anhu. yonent bi ne ne ñaan googi Yunus ñaanoon. Mm. ba yàlla xettali ko ca problème yi mu nekkoon te ñaan googu laay la ci alquran wala juz la ci. Mm-hmm. aaya ci alquranul karim. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na képp koo xamante ne dina koy ñaan. na yëg ni borom bi subhanahu wa taala du ko ñàkk du ko delloo ci dara fa innahu lam yad lam yadcu biha rajulun muslimun fi cheyin qat illa stajaaba allahu lahu allahu amul benn julit buy jàng ñaan googu jublu ci yàlla fajal koy aajom lu dul yàlla dina ko nangu te ñaan googu aaya la ci alquran alkarim laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin su ne aïcha radiallahu anhu nee na mm-hmm. yonente si sallallahu alayhi wa sallam bu masaana bëgg a tëdd guddi ne day dajale ñaari loxoom ëf ca jàng ci ixlaas falaqi naasi nee na daal di koy raay ci aw yaramam yépp tàmbalee ca bopp ba jaar ci kanam gi fépp fu loxoom mën a rek mu daal di ko fay def raay raay ko ci ñetti yoon <laughs> yooyu mu jàng te mu a yomb yooyu mu jàng waaw ay saar la ci alquranul karim abdullah bin mas'ud radiallahu anhu wala abu mas'ud radiallahu anhu nee neen fi axiri albaqara man qara'ahuma fi laylatin kafataahu ñaari aaya yi mujj ci suratul baqara hmm. di laa yukallifu llahu ak amana rasulu hmm. képp ku ko jàng ci guddi doy na ko sëkk jërul muy def leneen fekk na ko hmm? dara mënulu ko dara <laughs> waaye day fekk mu ànd ak nga gëm ko ah, saa bu alquran di wax ne day jariñ wala day faj ak yooyu rek day indi baatu ngëm wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin lil muminin mhm, mhm, mhm. loolu ma ta bàyyi xel jaabir ibn abdullah radiallahu anhu moom it nee na yonent bi nee na man maam yonent saa sallam kaana laa yanaamu xatta yaqraa alif lam mim tanzilu wa tabaraka alladi bi yadihi almulk hmm. nee na yonent saa sallam daawul nelaw guddi lu dul daa jàng sajda ak mulki suratu sajda ak suratul mulki Arbaad ibnu Saari radiyallaahu anhu nee na yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam kaana yaqra'u almusabbihaat qabla an yarqada wa qaal inna fiihinna aayatan afdalu min alfi aaya nee na yonent bi daan jàng suuratu sabbaxa yëpp sabbaxaak yu sabbixoog sabbix yëpp lay boole nee na da ko daan jàng guddi gu nekk daan wax ni am na laaya ju ci nekk day ci saar yii <coughs> hmm. jenn laaya ju nekk ci saar yii moo gën junni aaya ibnu kathir radiallahu anhu neen laaya jooju yéen saa sallam di wax mooy ja ci suratul xadid huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli cheyin alim allahu akbar eh, farwa ibnu nawfal jëlee na ci bàyyam nee na nawfal dafa qaala li nawfal iqra qul ya ayuha alkafirun neen yonent bi salaa sallam daa wax baayam boobu di nawfal mhm. ni ko del jàng qul ya ayyuha alkafirun thumma nam ala xaatimatiha fa innaha baraatun min alshirk hmm. bu guddee tey ba nga bëgg tëdd ba dara su lu dul nelaw mun ko mun ko jàngal ayatul kursi te bu jeexe rek tëddal nelaw ndax daa mel ni dangaa raxas lépp lu nekkoon bokkaale ci yow sa diggante ak sa borom jéggalu ko la nga ci xamul daal tëdd kon tawxiid nga tëddaale xam naa ni waxtu kii bu doon bu doon waaye xoolal uh-huh. boo jullee pare mu jox la yoo jàng muy alquranul karim bu mm-hmm. guddee ci xaaju guddi gi mu jàng ñu dégg muy alquranul karim booy tëdd ja euh, ra kii say loxo léemu raaj sa yaram yëpp loolu di alquranul karim boo defee loolu pare jàng ay aaya doog koo tëddaale suba ngoon ayatul kursi <laughs> ginnaaw julli ayatul kursi xolal tëdd biir guddi gi mm-hmm. boo yeewoo ci suba gi mm-hmm. booy bala ngaa tëddaat ginnaaw julli farata yëpp kon ban waxtu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan te daawul ñaane alquranul karim ñaanu yonent bi yëpp alquran noonu si abdul ñu ko yàlla bala defal te nag booy xool yi mu ci joxe daanaka moom la nit ñi di wër mhm, muslaay la ñuy wër hmm, cat la ñuy daw nangam ak nangam te yëpp benn bu ci nekk wax na noo koy defee te booy xool ay aaya rek la lay jox xam nga tey bu bu ne woon eh, jàngal kaamil sa baqara rek bu ne woon balaa ngaa tëdd jàngal baqara kon ñëpp taayal ci waaye xoolal ñetti saar yi mu joxee daanaka booy xool Sénégal ñi ci ëpp ñetti saar yooyu lañ gën a mokkal mooy ixlaas falaq ak naas te mu nekk lu am njëriñ loo xamante ne tabarakallahu mhm. kon alhuda mi ngi noonu mhm. ay njëriñ rek la ba mhm. fees yàlla ñu ko yàlla boole defal ñu lépp insha allahu rabbi ah, di la delloo rek te insha allah di eh, ñu waajal ñu waajal à l'école du prophète ah xeeran insha allah <laughs> jazakumullah cheikh Abdoul Aziz eh, am na solo man ab kaw kaw la eh, ni mu leen ko faral di waxe yow ak Mbàkke nàndal bu mu ñëwee Dakar moo tax léeg <laughs> léeg-léeg bu jiital leen ci yéen yi rek topp seen ginnaaw jazakumullah xeer ndax digal ni nga gunge tey di la ñaanal yow sa émission boobu ngay doxal ci télé bi da à l'école du prophète yal na yàlla mhm. defal la ci barke ndax lii ñu doon wax di yoon saa sallam mooy alquran mhm. sa émission boobu loolu lay jeqi mhm. di jeqil nit ñi nu yonente bi jikko woon alquran nu mu ko defee nan la pratiquer ci dundam di ko jox di ko jox julit ñi ñu di ko jariñoo loolu tamit lu waaw yal na yàlla gën a dëgëral bu baax eh, Tawhid TV incha allah ca kilifa ga ba ñi ci nekk di liggéey man mi ci gën a doy rek ñëpp mm. yàlla dëgëral ñëpp ba message bi ñu yor bëgg ko jox jullit ñi mooy diine l'islam ju set joo xamante ni den leen mën a jëriñ àdduna ak alaxira yàlla may leen ci tawfiq ba ñu bay ci waar wu yaatu te set di sant bu baax di gërëm mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun ci eh, émission bi di leen dig daje incha allahu aljuma ji di ñëw ci waxtu wi seen mbokk la woon Abou Taha amoon ganuk eh, Abdoul Aziz Thiam <laughs> aljumay tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.